dal leen ak jàmm Ali Bongo ñàkk na bunga njiit réew Gabon ba woon di Ali Bongo moom nag rocc na nguur gi ci loxoom ñi def li ni mel moo di takk der yi ubbil journal bi di réew mi quotidien moo ko xamle ginnaaw juróom fukki at ak juróom bi nga xamante ni famille Bongo ñoo yoroon nguur ga militaire yi jëlee nañ ko seen loxo ki jiite li ni mel moo di général Oligui Nguema moom mooy léegi nouvel homme fort bu réew moom di Gabon waaye na communauté internationale bi ñi ngi ŋàññ bu baax coup boobu nga xamante ni moo am ca Gabon le quotidien yéen kaay ni Ali Bongo renversé par les militaires militaire maanaam militaire yi jëlee nañ ci loxo nguur ga journal bi la di xam leen jamono ji nag ñuy wax ak yéen doom ja dañ ko teg loxo soxnaam ba léegi kenn gisu ko waaye Ali Bongo mi ngi ci résidence surveillée loolee nag li tax militaire yi def li ni mel élection yi ba mu jàllee dafa bëri woon ay werante ci biir ñu daal di foqati li nga xamante ni moo di nguur ga ci kanamu Ali Bongo bi nga xamante ni moom moo ni woon élection yi moom moo ko gagné enquête yéen kaay ni Empire Bongo daanu na te pourtant moom dafa coupé woon li nga xamante ni moo di internet ngir bañ dara yëngu ci dëkk bi jàmm ci moom journal bi di enquête yéen kaay di ñu xamal kan mooy Brice Clotaire Oligui Nguema moom mi nga xamante ni moo nekk njiit transition bu Gabon ca jamono jooj nag Vox Populi dikk ak ñun ci Ousmane Sonko maire Ziguinchor ni soppi naw doxalin ci xeex bi nga xamante ni mi ngi ko doon xeex diggam ak nguur gi réew mi quotidien ne Sonko bëgg nañu saafara li nga xamante ni moo di crise bi am ci réew mi jaarlek ci wàll politique ak wàllu diplomatie nee na loolee nag nangu la ko waxtaane ba ñu am ci ab saafara Juan Branco ci biir yor yor yéen dénk wàllu yoon kàddu yi nga xamante ni yëkkate woon naka ni Ousmane Sonko moom mënta bokk ci élection yi maître Juan Branco di avocat wu Sonko moom démonté naka benn par benn moom weddi ko ba mu set l'observateur ni Sonko yoon wu mu ubbi nag bett na ñëpp 24 heures yéen a kaay ca jamono jooju mu dikkaat ak ñun ci njiitu réew mi président Macky Sall daje nga xamante ni mi ngi ko doon daje démb ak ay jëwriñam moom nag li mu xamle moo di na ay jëwriñ def seen kéem kàttan ba jëmmal li nga xamante ni moo di plan Sénégal émergent ñu joxe ay jumtukaay yu mat sëkk la laataa 2028 ca ndaje moom la nag njiitu réew wax nak jëwriñam ñu def seen kéem ba indi kaaraange gu doy ak jumtukaay yëpp yi nga xamante ni Touba soxla nañ ko ngir ñu amul màggal bu mucc ayib ca jamono jooj nag surtout quotidien ñëwaat ak ñun ci mbënd mi nee na jamono ji nag askan wi yeewu Dakar ak banlieue Tëngéej ak li Ndar Jurbel Touba ak Kaffrine ak gox yu bëri ñu nekk ci réew mi jamono ji nag ñu ngi ci mbënd mi lott nañ lool te po 2012 ba 2022 ay milliards milliards dugal nañ ko ci gox yooyu le waaye ba léegi xamle ni juróomi téeméer ak juróom benn fukki milliards nguur gi dugal na ko diggante 2012 ak 2023 waaye ba léegi furaas ca jamono jooju nag source a ñëwaat ak ñun ci ndaje mi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall daje naka ak ay ñooñam yu bokk ci coalition benn bokk yaakaar Macky Sall ca ndaje moom le mu doon leen laaj wan yoon la mën a jaar ngir fësal candidat wu benn bokk yaakaar te du am benn coow moom nag li mu xam le moo di dafa bëggoon rek amal li nga xamante ni moo di benn point de presse wala benn ndaje ci benn hôtel ci mi wala ndaje mu mag ci siège parti APR Macky waxul ban dat la jàpp ngir fësal candidat wu benn boo ko yaakaar boobule ca jamono jooj nag le peuple ak bés bi la jour dikkaat ak ñun ci màggal gi le ñëwaat ak ñun ci juróomi doomi xaadim rasul yi nga xamante ni nekk ñu xalif bokk na ci sëriñ Ibra Mbacke Cheikh Souaïbou Mbacke sëriñ Abdoulahi Mbacke Mohamed El Bachir Mbacke ak sëriñ Murtada Mbacke bés bi defub ab gëstu bu yaatu ci kër sëriñ Touba yi bokk na ci kër sëriñ Touba bi nga xamante ni moo nekk fii ci Ndakaaru te sëriñ Modou Moustapha Mbacke xalif général njëkk xamle am na ay niti politique yi nga xamante ni ay xaaj guddi dinañ leen fi dalal mu ne nag ndono lu nga xamante ni sëñ Murtada Mbàkke di caatu Xaadim Rasul moom bàyyi nag fi bokk na si fukk ak juróom-ñaari kër sëriñ Tuubaa ca Italie ak fukk ca états waaye nag sëriñ Mamoor Mbàkke di doomu sëñ Murtada Mbàkke moom nag mooy wéye li nga xamante ni moo di liggéey bi sport ak stade yéenekaay Sadio Mané Ismaïla Sarr bu laay ja ñetti attaquant sénégalais yi ñuy doxal bu baax laata seen match contre Algérie ñu Sadio ñeenti biir la dugal si ñeenti match Ismaïla Sarr benn but ci ñaari match Boulaye Dia moom benn titularisation la am dugal benn but ñu jeexal ka ak sunu làmb ak Gris Bordeaux mi nga xamante ni amoon na chance ngir ngir nekk li nga xamante ni moo di roi des arènes ginnaaw bu mu dajee Yékini waaye loolee nag da ko mujj a lajj jàmbaar nag kale na bu ci gëm bu njëkk ci diggante Zos la ak Ada Fass ñu ngi ko jàpp juróom-ñett fan ci weeru octobre sunu lamb xëy ñun tamit ci Gaston Mbengue fanweeri at ak ñaar la def ci lamb ji mi ngi ko duppee le vrai maestro ñu yendoog jàmm société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen de presse